méngale formation yi ak liggéey yi nekk ci entreprise yi diggante entreprise beeg université kan moo ci war a adapté wu laaj bi samp na ci université Alioune Diop bu Bambey de ñoom nee nañ entreprise yi ñoo war a xool formation yi université yi def ñu adapté wu ci. il faut que nit ñi arrêté di wax ne université yi seen formation adéquate ñun de bokk nu si te aussi entreprise ñoo war a def effort boobu noonu il faut que entreprise aussi ñoom tamit ñu ñu def innovation il ñu avancer dans ce sens parce que tey jii métier yi ñuy former yëpp ci université yi métier yi ñu war a amal njëriñ as as bi la. mu di stratégie boo xam ne nii am na lu bu jur. ndaxte ñi génn ci université Alioune Diop di Bambey di am liggéey bari na lool. am nañu ay plus de téeméer boo jël daanaka juróom-ñeent fukki yi ñoom inséré wu nañ ba pare ci yenn filières yi ci yeneen filières yi daanaka téeméer boo jël euh, juróom-benn fukki yi wala ko ëpp donc inséré wu nañ. donc inséré wu nañ. ñu boole seen bopp ci réseau bi ñu tuddee alumni à l'université Alioune Diop bu Bambey ñi nga xam ne jot nañ fi am diplôme te am liggéey fu mu ne nii dellu si fi joxe fi ab ndimbal. maanaam njël maanaam njël benn lu ñuy tàmbali la waaye loo xam ne day sax la ndax du di rek ay masque ci lay yem te am na ci ay yeneen partenariat yoo xam ne war nañ koo mën a def ci loo xam ne tey université képp ku fi ñëw xam ne kan ndongo daar yi fi nekkoon am na loo xam ne waraloon nañ ko suñu université parce que suñu recteur daf ñu ko doon wax maanaam service à la communauté. ci contexte bi nga xamante ni liggéey dafa jafe ci réew mi université Alioune Diop bu Bambey tamit war naa xool ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci diwaan bi di Bambey jàppale leen ndax ñu mën a am am xëy.